Hmm, boo tuddee Serigne Babacar rek mu daal di tàqalikoo ak sagoom xam naa ah nee naa ko bàyyil ba dimanche am nga problème pire di gis-gis dimanche moom la def sax dama ko may spécial Serigne Babacar si Njaga Njaay Jamil bu Serigne Mansour war koo wayal sil moom mi ay ci ne ñu doxal 1957 la génn àdduna moom la génn ñaata ngay maye moomoo moo tax ne ko xalifatul seexi wal maxtaari yaa fi dimbër eh si yaay fajal diine ay daanam te ñëpp la war soo demee diggante guumuun ba koñ jàkka cànd ay kuli ngi jaan ay kër Cheikh Marouba Gueye ba keroog ngay dem kër xaali ak njànd ak tooro ba keroog ngay wàcc ba keroog ngay dem yoonu bi ñoo naaga ba keroog ngay wuti kër njombo foofu fépp sëñ Babacar rek moom la ay ca moom mayal ma ko xaalis bu bëri waaw si di faagay mi ci jawaar kenn du moom waaw kooku kenn du moom moom xalifatul Cheikh Ibrahima Maxtaar yi moo fi dimbal sëñ Babacar dafa baax moom sëñ Babacar ndax nee noon soo bañatee nit bu ko tuddee sa doom la nekkoon ca Aboubacar Saddiq yëpp mi ngi ci moom. soo ko weddee yaa Seyda xoolal ci seen Babacar si Mansour Balhawmi lan la jël ci Babacar Saddiq. mu mag ma am na lu mu ci jël. jël na caractère ba. benn ñaareel ba jël na dëggu ga. Saddiq mooy lan oustaz Sadaxta Saddiq. Saddiq mooy ku dëggu. ku dëggu. waaw da koo jël. waaw moom sëñ sëñ Babacar si Mansour Balhawmi mi toog ci jal bi. koo bëggul jikkoom bu ko tuddee sa doom mais góor gi pour gàttal bëgg nga deux cent mille ah fi mu jooni jooni nii waaw waaw dégg li moom moo di wax pour nga am 200000 rek. moom moo wax ko waaw li la nga wax ko fu muy jaar rek. bëgg nga 200 mu ne ah. ah. waaw waaw bëgg naa 200000 kay. lii du pour yow moo acca. Ah, waaw d'accord ana sa téléphone. Ah. ana sa téléphone. jëlal téléphone bi. sa téléphone ana mu mi ngi nii téléphone baa ngi am suuf yi. man de maa ngi Facebook live nii. waaw léegi Sen TV l'officiel gi. waaw léegi 200000 nu muy génne. ku commenté bàyyi sa numéro de téléphone. waaw ma baaxee la 200000. ah. te gaa yi ko déggandoo kon. waaw te te xam nga sax nu may def deux cent mille yi. cent mille francs léegi vingt cinq mille laay maye nii. waaw fi ne nii. nii nii nii. waaw damay maye juróomi junni nii. Mm-hmm, mm-hmm. léegi deux cent yi xam nga yow sa waxtaan dafa neex. waaw ba waxtaanee ba dugg ci biir GP bi rek. ma joxe deux cent yi. su ma duggee ci biir GP bi. boo duggee ci biir GP bi rek ma joxe. <laughs> boo demee fee cëppi cëppi. waaw ma joxe deux cent ah, jeex na d'accord. ayca <laughs> Sawia. ah mais deux cent yàlla na ko waa Caaroy géej jël waay. nga ne ma waaw waaw waa Caaroy géej laa bëgg mu jël ko. <laughs> mais nag fee moom dinaa kii moom. ayca nen ne. waaw donc damay dama bëgg maye vingt cinq mille nii. balaa waa gis-gis di jël bu ko defee euh, ñu baaxee leen ko donc maa ngi euh, Facebook live. gars yi ñu ngi woy di commenter ba tey donc je vous rappelle que ni mun ngeen euh, dugg ci émission bi en direct. 88 ngeen di def 628 89 90 wala 88 628 08 08 bu ko defee euh, ngeen mën a bokk ci waxtaanu euh, gis-gis bi waaye tamit ngeen mën a euh, bokkaale ci ñi nga xam ne dañ leen di may tey ci xéwal gi donc su ma duggee Facebook live commentaire yi bëri na. Mm-hmm. donc bii ma ci jël moom mi ngi tudd Ami Collé Fall. Hmm? Ami Collé Fall. donc nee na waaw faaleen la. nee na mi ngi rafetlu émission bi et parti bi ko ci gën a neex mercredi euh, mooy waaj tàmbali mooy gis-gis. Uh-huh. donc moom numéro de téléphone am mooy 77. 797. 14 05. voilà 797 14 05 donc def leen comme Ami Collé sànq euh, may nañu benn 200000. 200000 waaw mën nga ma fàttali tur bi. mu ngi nii euh, Assane Mbaye Diop. Alassane Mbaye Diop. Alassane Mbaye Diop donc moom la ñu ubbee sànq jox nañu ko deux cent mille ci ndorteel donc Ami Collé Fall moom jox nañu ko juróomi junni bu ci kanamee tuuti dañ doxandu ci YouTube bi euh, des médias le temps que euh, ñuy xaarandi ñi nga xam ni ñoom ñi ngi wettalikoo seen ay téléviseurs pour mën a woote ci serveur bi bu ko defee deux cent mille yi mën a dem mais jàpp daal fii ba émission bi di jeex xéwal yi day gën a yokk. Bakary Bakary na numéro mu ngi ci te te ko jëlal <laughs> ayca <laughs> alors euh, euh, Safia gis nga ñoom ñëpp ñu ngi envoyé ay kër ñoom Bakary mm. ñoom di ñoom mm. Mara ñoom ñëpp pour rek ñu ñu ñu tànn leen mais comprendre seen système. dañuy uddee dina am dara. du ñu am dara <laughs> alors ñu bàyyi leen ngeen joxe seen thème. merci beaucoup Nene Aïcha merci beaucoup Momo. Momo kontaan nañu bu baax a baax Mouhamed Diop. moom itamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax dañu ko fekk ci plateau bi donc ñu ngi koy ziar di ko bëggee Mouhamed Mbaye ak say invité ñu ngi lay ziar bu wér a wér a wér di leen di xaar aussi seen xalaat ci euh, thème bi ñu nar a andi. parce que képp kuy góor képp kuy jigéen da lay soxal papa ñu bàyyi la nga tas bagage rek ñu daal di tàngal fii sama yi ni nga commencé nelaw dafa mel ni. yeewu leen boo pour débuter. non non non bu taxawagum fii de. je veux beaucoup beaucoup de cœur. je veux que ça <laughs> soit rouge et je veux plus d'un million de vues. plus d'un million de vues. c'est possible kooku dama koy daaneel toujours ah. dama koy daaneel toujours toujours 2S daaneel naa fa plus de. ah gis naa gis nañu ko. lamb ji keroog. ba un million atteindre naa ko. mais daal jàppal ni. Mhm. boo duggee ci GP bu dugg gu. su may gën noonu jotagul boo duggee rek deux cent mille dem. <laughs> waaw mais je veux que ça soit rouge. ayca xool ma téléphone bi. je <laughs> ak ñëpp waa États-Unis yéen ñëpp. je veux des cœurs. <laughs> Mati depuis Versailles. cœur ñoom mu depuis. Eh? dédicace yi lan laa ci wax. d' accord bàyyi naa ko mais je veux daal des <laughs> cœurs. te ba cœur yaa ngi daan ma ah? mi ngi ñëw kër mi ngi ñëw kay ah, mi ngi ñëw lay xoolal mi ngi ñëw ah mm. waaye je veux que ça soit rouge encore ñu ngi lay dégg et je veux plus d'un million de vues waaw ah. top c'est parti hop violence faite aux femmes hop ndeysaan violence faite aux femmes uh-huh. moom ñu ne un mal sans raison un mal mais sans raison man de gërëmuma ko violence faite aux fam jigéen nga jël ko def ci moom ñeent ak taranso génnee ko kër ndeyam génnee ko kër baayam indi ko mu dugg sa kër soo ko woowee mu wuyoo saw sant kon kooku fële amatu fa dara su génnee àdduna su ko tëralee doon naan boroom këram ñëwal taxaw li ko dalee ci tànk yi ba ci ndigg li ilimaan du fa taxaw kenn du fa taxaw yow dong yaa fay taxaw su génnee àdduna soo du yoree sa tànku ndijoor war koo nangu li ko dalee ci ndigg li ak tànk yi kenn du ko nangu yow yaa koy nangu kenn du ko nangu di ko teg ci bàmmeel li ko dalee ci ndigg li wuti tànk yi ndax lislaam moo fiir nga xool ko damay jéggi sax fii jéggi frontière yóbbu ko ba bitim réew jël ko am ak moom ak njaboot takk ko ci paratas yàlla ak suunas Muhammad te am ñu ko bëggoon gisu fa ndey gisu fa baay gisu fa mag gisu fa rak lu mu mën doon ko ko mënal nga lekk alalam ba mu jeex takk takk takk takk takk ëlbatiku ne xës ci kawam daw bàyyi ko ak njaboot teg ko ñaari doom wala ñetti doom sëf ko ko te laata ngay dem da koy dóor dem ak moom demin wu ñaaw jóge fi nga nekkoon dem ci beneen état dootu la gis dootu la dootu teg bët xanaa yomal xayam kooku violence la jigéen nga nekk ak moom ci kër di ndeyam di baayam war koo boot ëlbatiku dama dem ba ay weenam daanu ba ab taaram réer mënatul ay tànkam xar yoratul dara mu boot omat jiital ëmb nga xam ne kenn soxlaatu ko yow dong yow yaa ko soxla nga ëlbatiku rek dem jël gune gu tuuti ñëw indi daal di teg ci koom boole ci ay duma ak di ko sosal ak di ko wax lu ñaaw te fekk yaa yàq alalam yàq carrière mu di ko misère ba am goitre wala mu koy misère ba génn àdduna te du am fu mu koy waxee day dama dem ba mujj sax day am dépression wala fu mu taxaw wax nga ne kii moo bari ay wax waaye la muy daj ci ab néegam kenn xamu ko yaa lekk léppam lekk alalam lekk yëpp man mbay Mbaye Ngoné Fall d'accorduma ci loolu duma ko nangu te musuma ko nangu ci këru àdduna jigéen daal nga jàpp ko di ko toroxal lekkut naanut lu mu yor nga lekk ko ëlbatiku waroon koo sagal waroon koo taxawu waroon ànd ak moom war a jàpp ci loxoom war ko boot war koo roganti nga nekk bitim réew ak nga nekk fii ci biir réew mi nga ko wan ko ginnaaw wala nga nekk bitim réew di ko jëndee yeneen jigéen ndax xam nga ne mënut a dem tourne biiram ci yow nga ëlbatiku di ko dawloo di ko chanteloo fu nekk mu di fa dugg loolu nanguwuma ko ab jàpp jigéen di ko toog waaye nag dafa am dóor jigéen ak jigéen ju dóor lu boppam ah. Ah. lu ma la wax maa gis laa lay wax man damaa gis ndax damaa dox yéen nag da ngeen a jàng man damaa teg sama bët mm-hmm. gis naa jigéen taxaw borom këram taxaw